moom nee na euh, ba léegi leeralul daal ndax dafay génn wala boog dafay daal di toog la mu xam ne daal moom mooy euh, yegg siwul na daal ci ay pexe kon nag moom du toog daal di defi pexe ngir daal di fi des ba léegi bu ñu koy xayma moom daal xam ne daal ne magistrat yi bëgg nañ mu des foofee ca biir conseil supérieur de la magistrature kon Diomaye ba léegi daal leeralul ndax dafay dem wala boog dafay toog la mu xam ne daal moom mooy tëddee na njaaxanaay ci euh, la ñu ko daal di gisee le point nag nañu Diomaye jamono ji léegi waxul lan mooy mbëbëtam ci ci coowal lu ni mel bés bi la jour la mu ci wax moom mooy joomaay waxul waaw waxul la déet ndaxte nee nag moom ba léegi daal euh, génnul toogul bokk na ci daal la ñu ca euh, mën a jàpp bu ñu koy xayma daal ngooy na ngooyul daal noo ne euh, la ko bés bi la jour waxee ndaxte nag nee na ba fi ñu toll nii daal moom Bassirou Diomaye nee na daal yëf yi ni mel bokk ko daal ngir taxaw la mu def daal moom mooy toog di déglu yi lekk magistrat ba xool ana rek ban déggoo moom moo fas yéene tukkee ci ñoom ndax dafay lañu cay xamle kàddu gi itam jib na ca boru ko Sud Quotidien yéenekaay jomaay nee na waaw waaye nag am na lu ñu cay desandil ba léegi bu ñu moyut nag ñu ngi jëm rek ci ab application réforme yi nga xam ne daal jot nañu ko proposé loolee bokk ci daal ci li na ci daal la nga xam ne dana ci dogu rek ngir saafara am ca Le Quotidien Le ci ponk boobe la mu ca wax rek moom mooy nag lépp loo xamante ne daal jot nañu cee déggoo lépp daañu ko appliqué bokk na ci nag lépp luy wàllu tukkee ci lekk assise maanaam waxtaan nañu amaloon foofee ca booru ka jam ñaajo moom Bassirou Diomaye ma nga ca tànk yooyu la ne bu ñu sukkandikoo ci suñu yee naataango moom na nag ngir eh, des ci bilek pouvoir du jël ay subterfuge loole les échos yéen kaay moom moo ñu koy xamal tey ji rek ci xëtam mu njëkk nee na la koy yóbbu ca palais de la république moom moom njiitum réew mi xam na ko bu baax a baax te nag jamono ji eh, du ko caaxaanee ba tax na daal eh, des wala boo ko génn ci biir conseil supérieur de la magistrature loolee daal lu leer moom moo koy fësal la Abdou Mbow la mu wax jamono ji daal moom moo ca leer jamono yi ca tukka les échos nag téeméeri fan la yoo xam ne def nañu ko rek ci bopp réew Sénégal waaye daala euh, téeméeri jafe-jafe la Abdou Mbow yàq na Diomaye ak Sonko ñu sukkandikoo ci euh, Les Échos euh, yéenekaay moom Bassirou Diomaye ma nga tam ne fàng ca ëttu ko source a foofu daal sëñ ngundu ak i diggéem bu ñu koy xayma bokk na ci daal lu jëm ci taxawaat conseil supérieur de la magistrature waaye ubbi baru amal ab révision maanaam saytuwaat code de la famille ba ci code pénal ak code de procédure pénale yi nga xam ne jot nañu ko proposé bu ñu sukkandikoo ci source a yéenekaay waaye enquête ci xëtwa boobee daal la mu ci wax moom mooy am na nag lu ci bëri loo xam ne daanaka jar na xoolaat bu baax a baax ci lekk rapport ndaxte Sénégal daal jamono ji magistrat ya daal lañ mot nañu eh, téeméer ak fanweer yoo xamante ni daal gis nañ ne avocat ya motuñu ko ndaxte jamono ji daal eh, ñoom ñu ngi ci ñeenti téeméer ak eh, fanweer ak juróom-ñeent li ko dalee Fatick Kaffrine Sédhiou jàpp Matam daal désert judiciaire la maanaam nag dara amu fa ndax ndaxte gisuñu fa benn avocat bokk na ci daal la nga xam ni enquête yi mu ngi xëy dëxañ ko ci xëtam wu njëkk Vox Populi moom ci ponk boobee la mu wax daal moom may moom Bassirou Diomaye fay daal mu ngay dalal xelu ko askan wi jëm rek ci fanweeri liggéey yi nga xam ne ñoom ñoo tukkee ah, ci lekk assise jamono ji daal nee na daal la bu ñu koy xayma bu fekkente ni daal lépp loo xam ne ñu ngi ko ci waxtaanee intérêt personnel ma nga ca moom kon nag ah, du taxaw daal mooy ci bi lekk poste bokk na si daal la nga xam ne loolee la daal di ah, waxtaanee Cheikh Tidiane Dieye itam xëy jamono ji les fàng ceetu ko yëglekaay bi loolee bokk na ci daal lañ cay waxtaanee projet ba jëm ci usine de dessalement beeg ak 459 milliards yi nga xam ne daal ñoo nga ca woon bu ñu koy xayma moom Cheikh Tidiane Dièye daal euh, daanaka tasaare na tasar loole di contrat bu ak waa bi nga xam ne daal moom njiitu réew mi Macky Sall ci jamono moom moo ko xaatimoon ñu ñuy xamal daal ne jamono ji euh, moom amul lenn loo xam ne daal mu ngi ko cay ragal ci wàllu ko contentieux judiciaire maanaam euh, dem ca ba fu mbaxana nekkee benn ndaxte lenn la rek loo xamante ne ni conseil d'administration ba moom àndu ca woon benn yoon jamono ji nga xam ne ah, ñu ngi koy ah, xayma antenne euh, quotidien moom dellu siwaat ci mbiru ko Abdou Mbow la mu xam ne daal moom mooy euh, Pastef euh, fileek ayu bés bi ñu jëm ñoom daal daañu motale seen i téeméeri fan ci bileek pouvoir waaye boobu ak léegi yëf yi daal dafa mel nit ñuul ñuul kott la ca gis moom Abdou Mbow nañu nag jamono ji buñ koy xayma askan bi yëpp ñoom dañ leen rek jaay li nga xam moom mooy ab projet boo xam ne mësuta am loo tax jamono ji tiitaange war na am daal ci lan mooy ëllëgu ko Sénégal bokk na ci daal la ñu xam ne moom mooy daal askan bi ñoom ñëpp jamono ji daal la toog rek jàpp ci yàlla di xaarub ana rek fu wànnati di mu jëkk gëtam ndaxte bu ñu koy xayma ñoom la ñu digge woon jamono ji moom mooy ñaar fukk ak juróom ci ay jëwriñ maanaam ay ministre yoo xam ne daal dañu doy ngir jubbanti Sénégal waaye jamono ji la ñu gis moom mooy bu ñu moy daal conseil des ministres dana dem ca Dakar Arena ndaxte la ñu gis daal léegi ne ministre bëri na lool ci yëglekaay bi la ko waxee le peuple yéenekaay nag nañu yëf yi daal bu ñu koy xayma ay naxe mbaay kott la ñoom ñaar ñi ne fàng rek ci ëttug yëglekaay maanaam seeni téeméeri fan daal doon nañu Euh, bu ñu koy xayma euh, ñetti weer la yoo xam ne daanaka dara defuñu ko fi euh, ñetti weer la yoo xam ne tam bu ñu koy xayma safara kese la bi gis waaye tamit téeméeri fan la yoo xam ne furaas dara amu ca du yoo Ousmane Sonko Bassirou Diomaye Faye ba fi ñu toll nii daal la ñuy def moom mooy daal suppu jalañ waaye daal amul lenn loo xam ne jot nañu ko fay liggéey ay forfaiture maanaam jaay doole ak i liggéey yoo xam ne nii ba léegi amul lenn loo xam ne jot nañ ko ci jëmmal bokk na ci la yéenekaay bi naqarlu bokk na ci tam ñi nga xam ne ñoom ñoo des personnes di yaakaar wàllug rupture loole ñoom ñëpp ah, daw nañu bu ñu sukkandikoo suñu naataango ndax Bassirou Diomaye bi la ah, moom mooy doxal Sénégal wala boog Ousmane sonk la loole laaj la boo xam ne le peuple yi ni moom moo ko samp Espagne Allemagne anakat moo ca jàll ci wàllug demi-finale record yéeni kaay moom moo samp bi lekk laaj diggante Lamine Yamal ak Jamal Musiala loole tey jii lay doon euh, bu ñeenti waxtu jotee laata loolu rek Argentine ca baru Copa America wutali na demi-finale ya laaj samp ca kaw Brésil bu Vinicius Junior ndax compétition fii lay yem moom Vinicius laaj la bu fekkente nag Brésil jàllul ca demi-finale moom Vinicius kenn dootu ko gis ciblé Copa America ndax ca quart de finale bi du ca bokk la ko waral bokk na ci ay carton jaune yamu tegle ay chat lii mooy loolu seen i kaay xëy fësal tey jii nii salaam Grégoire merci beaucoup. cant ak ngërëm ñeen na la yow tamit nga passé une très belle journée ba altine incha allah. ci kanam ay Sadio Guissé ci kanam Grégoire fàtte naa ne dañoo war a sport <laughs> merci beaucoup kon ci kanam maa ngi lay xaar nga yëg fekk suñu ci plateau bi bu ko defee ah, mbokk yi ñu daal di wëyal ah, waxtaanee actualité ah, politique ànd ceeg Pape Malick Thiam léegi léegi bu bàkk bi noppee ñu dikkaat ci plateau bi.